asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokku téléspectateur yu Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñu ngi ci làmb rek comme ni ngeen ko xamee ak Babacar du mën a ñàkk comme ni ma leen koy faral di ci yéen moom naa ne tey ci làmb moom kenn du ko présenté ñu ñëw nag fas yéene waxtaan ak moom parce que làmb ji ko ne xam na ne fan yi yëngutu na ci coow wi cloog yu mel ni ki noonu te ñoom defe naa bu dul ñoom làmb du am muy promoteurs yi moom itam mu nekk ci koo xam ne ci biir promoteurs yooyu mu ngi ci am ne mooy siège am maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay maa ngi nuyu ñu nga àndal di nuyu waa équipe Equivox yëpp di nuyu waa Sénégal bàyyiwuñu kenn euh, di nuyu waa monde de la lutte euh, di wax bonne année yàlla nañu yàlla defal jàmm ci at mu bees bi ñu dugg yàlla doon nañu xéwal doon nañu sutura bu baax ba dàqal ñu li fi nekk li fi nekk nga xam ne moo rëmb aju àdduna bi. yàlla na jeex ak jàmm daal ba nga xam ne ñu mën a delluwaat su suñu liggéey muy làmb muy leneen ak leneen ak leneen. suñu liggéey muy làmb ak leneen ak leneen mu mel ni ki daaw mois de mars saison bi taxawoon tey ñu ngi ci mois de bi bientôt ñu dem ci un an yéen ngeen nekk ay promoteur joxe mbër yi ay xaalis depuis boobu ba tey yow bi saison bi di taxaw noonu Dieye estimé na ñaata la génnoon ci xaalis ba jox ko ay mbër. waaw boobu day eh, saison bi di taxaw boobu fekk na est-ce que amuñu woon deux journées amoon nañ deux journées yoo xam ne war nañ ko tëgg mu nekk ci diggante Jarade ak Mbaytin diggante Abdou Diouf ak Giride waaw amoon nañu combat yooyu ak yeneen combat yu ne ci biir bu ñu waxee deux deux journées nag y a quarante litres boobu te ñëpp jot nañ seen avance presque euh, ñu ci taxawoon doon xaar parce que fa séenoon ko tëgg mais jàmm ak pexeem yàlla ak dogalam. waaw loolu bi mbir mi ñëwee dal si kaw àddina bi muy coronavirus bi yéen làmb tamit mu laal leen en tant que promoteur loolu nu ngeen ko dundee jéey depuis boobu ba tey. sant yàlla sant yàlla bu baax lañ ko dundee ak parce que bu fekkee na mbir mi yow kese la laal dafay metti mais dafa laal àdduna bi nga wax laal monde de la lutte laal monde de football sport yëpp mu laal ko laal lépp loo xam ne rek day soqaleku ci àdduna bi rek mu laal ko muy commerce bi muy leneen. ah mais dañuy muñ rek euh, parce que ñàkk ñànki kooku dafa fekk rek sa waay gore woo mais bu fekkee da nga am dara loolu métti nga di ko doxe woo ko ñaxtu defoo dara da nga bokk ci gor ñi rek ñu gore rek toog muñ xaar muñal suñu moom ñëpp ñi nga xam ne ñoom lañ seqal daal waaw euh, tëggaat fi ay combat si diggante bi parce que je pense que corona bi xalaatuñu woon ne dina si fii mu nekk nii mais nag comme li ñu wax ne jaam ak pexeem yàlla ak dogalam euh, bu ñu taxawalaatee suñuy làmb suñu morom yeneen morom naaw itam taxawal seeni làmb euh, ñuy taaxirlu rek di xaar ba saa yu làmb tijjee ñu xool nan la def ba ñooñu ñëpp ñu joxoon avance mën a ki teew ak ñoom ko tëgg loolu. mu mel ni loolu bi mu amee ñu ngi dox di dox ba fi mu nekk nii saison bi ubbi na mais làmb ji mënagul ubbi gaa yaa ngi wax waxu huis clos mu mel ni yéen promoteurs yi da su ma jumul daja ngeen ci seen see bi fi nekk bees dajeeg ministre bi daje daje yooyu après daje yooyu ba ñu ciy dégg waxu huis clos yow en tant que koo xam ne tey bayar nga ci làmb huis clos boobu ñuy wax noo ko gisee yow en tant que promoteur. non huis clos bi ni ma ko gisee mooy euh, ci làmb ñu ci waxtaan bu ñu ci amee condition ak accord yi nga xam ne ñu war a d' accord d' nañu ak ñoom pare nañ pour tëgg ko parce que boo xoolee football nga xool euh, bépp sport bu ne ci àdduna bi rek mu ngi def défi huis kilo pourquoi pas lampe véhicule war na mën a nekk te day nekk ndax euh, bu nekkee dafay nekk suñu njëriñ ñun ñëpp muy man mi nga xam ne dama joxe woon sama xaalis mu génn muy mbër mi nga xam ne dama ko tënkan jox ko avance tey mu war a génn pour euh, lii jeexee bu dem seetiwaat leneen kon loolu véhicule bi ñu ngi ñaar tàll ñëpp loxo ñu jàpp ci rek véhicule bi mën a nekk waaw est ce que huis clos bi amul ñoo xam ne dañuy ragal ne bu ko promoteur yi defee duñ ci perte est ce que xalaatu xalaatu ngeen xalaatu ngeen perte fekk leen ci huis clos boobu parce que huis clos moom bu ñu ko xamee mooy parce que nit ñi du ñëw ci arène ba. xam nga huis kilo boo ko déggee ak condition waaw daa am ay condition parce que euh, yaakaar naa kenn jëndul sa marchandise jëm di ko jaay di perte parce que huis clos am na noo koy defee genre dumping lay doon dumping mooy maanaam nga jënd fukk jaay juróom. xam loolu moom kenn xalaatu ko def euh, dëbb comme ni ko sama papa Gaston di waxee ñu ngi koy nuyu de passage dëbb ndox passe paasewul ndax sa bopp euh, véhiculo mooy maanaam dañ ci am ay accord muy ki nga xa euh, sénégalais président bi Macky Sall mu jàppale ñu pour ñu mën a jukki suñuy làmb tëgg ko làmb yi amoon daaw ak yi ñu jot a taxawal yëpp ñu tëgg ko loolu moo tax ñu naan la véhiculo wala soit ñu am sponsor yu dëgër yoo xam ne dañ ko mën a kii bu defee ñu xool benn média boo xam ne nii bu am doole lay doon tam mën a seetlu nit ñi ñu ànd seeg ñoom liggéey ak ñoom pour ñu club bi am waaw. Euh, tey loolu nga wax noonu pour ñu jàppale ne est-ce que loolu na ci li ngeen waxtaanee ak ministre bi wala ak waa CNC pour président wala leen soutenir pour club bi mën a nekk. waaw waa CNC maa leen nuyu de passage euh, lépp loo xam ne ni war nañ suñu diggante ak ñoom def nañ ko lépp loo xam ne war nañ ko waxtaan ak ñoom itam toog nañu ak ministre bi toog nañu ak CNC parce que réunion ak ministre moo jiitu ñu toptal ci réunion ak CNC bi toog waxtaan ak ñoom ba li nga xam ne moom la ñu waxante woon def nañ ko app bi ñu joxoon mooy conseil ministre bi njëkk mooy cinq euh, le cinq janvier muy mardi ci la ko war na jébbal réew mi yaakaar naa ah def nañ li war a def yëpp daal toog leen xaar décision bi nag ci ñoom la bu ñu paree rek ñun pare nañ waaw bu ñu paree yéen pare ngeen mu mel ni tey làmb ji euh, mbër yi génn nañu wax ñëpp gé maanaam jooytu maanaam mettit bi ak traay bi ak ñàkk compétition bi loolu tamit mu nekk loo xam ne defe naa ne lu méttee méttee métti la. waaw mais xam nga nag àdduna moom ñaar moo fi nekk képp ku lay wax lu neex xalaatal lu metti képp ku lay wax lu metti xalaatal lu neex dara continuer wul ci àdduna continuer neex ak naqar ñoo ànd. da ngay reetaan tey suba nga jooy kon bu lii amee xam ne dalul ci benn nit bu doon benn nit mën nañ ko saafara bu doon ci benn réew la jar mën nañ ko saafara obala obala benn réew la daal mën naa di law ci yeneen réew yi mais est-ce dafa yàgg yàggul dañ ko saafara rapidement ah parce que dañ ko saafara mais ak leneen ak leneen mais lii corona la xam ne dafa jóge siin law ci àdduna bi am fu mu toll kon bu mettee ci ñun la nekk dañu waxtaan suñu biir xool naan la ñuy def métti na ci ñëpp man si secteur bi ma nekk muy secteur commerce ci la gën a metti tey fi mu toll nii booy wax lu gën a metti tey fi mu toll ñu ko def parce que ñu ngi joxe suñu ñaata muy kale du ñëw te yeneen situation bul comprendre kon waa làmb ji metti na si ñoom man mii di wax yow dama joxe avance kon metti na ci man. ñu taxaw di xaar mais man daal de toute façon lépp rek dama koy bàyyi ci loxo suñu borom ak suñu kilifa yi nga xam ne ñoo jiite saa yuñ pare pare nañ waaw waaw. am na solo saa yuñ pare pare nañ ba dey bu ñu continuer ci waxtaan bu mel ni dama mel ni ki yéen damay faral di dégg benn baat te baat wax xaw ma métti trop làmb du développé am dëkk nangam nangam te yéen promoteurs yi ma xam ci làmb la plupart ñu ci bëri ay société la ñu yor yor ay salaire ñi ci yorul ay société tam ñu nga yore leneen di ci yëngutu mel ni yéen ñi développé dëkk bi daa mel ni est-ce nit ëpp na leen ci doole. waaw xam nga nag àdduna moom euh, ñaar dafa nekk boo ñëwee ci mbir boo yokku nag am nga loo wàññi te kon yàlla daf ñu natoo làmb nañ fii fi ngeen mën a euh, développé li ngeen soxla ci yenn yi. ak beneen matière parce que yem ci benn métier rek dafa nekk loo xam ni dafa xaw a métti bu fekkee nag da nga boole ñaari métier yu am solo nga di ko def euh, dina développer lu bari ñu bëgg dimbali euh, sénégalais yi moo tax ñu dugg ci làmb di tëgg làmb parce que bu ñuy tëgg làmb ñaata nit la ñuy wax dañoo ci gis seen bopp bari ñun loolu moo ñu gën a yokk dugal ci làmb sport la mën nañ ci développer lu bari mayul ci kenn moo tax ñu dugg ci pour di ko def mais bu dee ci beneen côté bi moom kenn duñ ko jàngal dañ ciy jàng ba def ci ay vingtaine de année mokkal ko tuuti nekkal ci suñu bopp waaw. muy commerce bi commerce moom daa mel ni mokkal nga ko moom affaire bool bool bi. waaw boobu moom ñu ngi ciy sant yàlla bu baax daal ñu ngi sant yàlla bu baax waaw. parce que loolu faw ma laaj la ko Dieye dafa jiite société bu yëngatu ci wàllum njënd ak njaay tey Dieye ñaata employé la yor. <laughs> est-ce que xam naa ko noonu loolu loolu dafa ñu ko yore dafa am ñu ko yore mais man yore wu ma loolu en tout cas daal maa ngi fa nekk fa comme ñëpp di am salaire comme ñëpp. da ngay fayeeku ah, waaw ngay fayee di fayeeku. ah en daal maa ngi fa nekk fa comme ñëpp am salaire comme ñëpp waaw. bi moom ku fa ne dañ la daggal salaire. ah fa daal di fayeeku xaw ma may fay. yow mais dañ may fay daal tout le temps dañ may fay waaw. sa salaire ñaata la. sama salaire ah yow sa salaire ñaata la Equivox su ñaata la lay fay fa nga jógee ñëw fii ba tax ñu kii la ñaata la. baadu salaire kenn ah gisaguma kenn taxaw ci eh, média yi di wax sama salaire ñaata la gisaguma ko boo ko gisee wax ma ko moo tax saleer yu mbër yi ñuy tudd nañ ko bàyyi. bàyyi salaire yi nañu bàyyi salaire yi jàmbur yi ñuy tudd ñoo ko mérito ñoo ko moom muy mbër yi dañ ko ñàkk liggéey ko gis nga dama am benn mbër sànq dama doon wax ak moom ma ne ko doom day dama gis nga yenu ay saaku yu diis ñu ñu koy yen ay saaku ñaari saaku suuf lañ koy yan muy yëg din yi bil yi ne ko kii moom lu ñu ko jox ci àdduna jar na ko naaj wu tàng jël deux heures ci bëccëg ñaari saaku suuf mu leer ma ne lii jabaram gisu ko ak ay doomam xoolal loolu ni mu méttee kook bu ñu ko joxee milliard mérito na ko vraiment mbëri mérito nañ milliard parce que li ñuy daj dem ci salle di yëkkati ay cinq cent kilos ay quatre cent kilos man xam naa si dara yëkkati naa weñ ba tey daanaka moom may yëkkati weñ mbër yu bari yëkkati wu ñu weñ ah, mais je que li ma gis mbër yi di di di di daj man yëkkati naa weñ ba amee fi kii boo xam ne ni bul comprendre Espagne laa fajoo Espagne laa fajoo moo ma gis moo tax ma bàyyi weñ mais mbëri ay jàmbaar lañ de ay jàmbaar météo ñu leen fay waaw. tey géejawaay ku ko wax tamit euh, wax la parce que yàlla dogal na. même bu fekkente ne juddoo fi mais fi nga dëkk tey ba yàlla def na ñëpp xame nañ la ak waa Géejawaay euh, ci Géejawaay ay mbër ne fi ay champion des fois temps yi passé xaw nañ fi dégg ay quelques bruits ci seen biir te yow defe naa ne ñoom ñëpp sa njaboot la ñu boo amoon message booy wax mbëri Géejawaay yooyu ban message lay doon. waaw waaw waaw waaw message bi nag dama ko yéexee sax jot loolu dama ko yéexee jot parce que maman bi muy am parce que nekkuma fi woon wala am na yu ma jàppan mais li ma leen di wax daal ku bokk teen ñooy laxasoo goj ñu ñoo bokk lu ñu mën bu séddoo bu ñu demee tey fi mu toll nii fu ñu mën dem bu ñu ñib si ñooy bokk di an te lu xew ñooy bokk toogandoo ñooy bokk nekk la preuve yi suñu papa Balla Gaye ñu ngi koy jaale de ñëpp ñun ñëpp bokk nekk bokk ndey bokk baay ñun ñëpp kon ñi fi nekk te mag ñi ko jiite woon dañoo bokk ndey bokk baay man xam naa si dara kon ñoom ñu fi nekk tey nañu bokk ndey bokk baay kenn bañ a dugg seen diggante ñu bañ a yàqalante ku ci ne nag lii la yàlla jagleel muy séewur sëg nga nangul ko sa moroom yàlla dafa bind te yemale wut il faut rawante am ku bañ ñu raw la nag da ngaa narta baax waaye ku bëgg lu baax dangay bëgg ñu raw la buñ la rawee nga mën a xool ka ca kanam pour yow tam nga raw ñeneen ku fi jiitu bañ na yow la yow kes yaa jiit ci àdduna bi kan la fi amu fi kan lañ fi wax ne moo fi jiit ci àdduna bi amu fi mais koo fi gis ku ne saa yoo xëyee di nga rombaloo moomut wala nga rombaloo moom nit lu mu néew la néew la am na lu mu moom lu mu bari bari am na lu mu moomut kon nañ ko nangu te ñoom ñu bokk day bokk waaye bu kenn dugg seen maayen bi bu leen kenn jaxase ku ci ne defal li la war sa combat toppatoo ko toppatoo sa famille toppatoo la bu ñuy wax ci yow bu ñu la waxee ci kii lii wax la ci keelee nga bañ te nga waxtaan ak ñoom ngeen fay ngeen ànd man de du ma ci duma ma ci du ma ci jaxa dégg kenn ku ne jaxase wala ku ma ci déggal leen itam dinaa la woo ba nga ñëw euh, ma ne li nga defee nii waroo ko def la preuve am na benn mbër bu ma ci dégg mu am lu muy expliquer benn promoteur dinaa ko seeti dinaa ko wax ne ko du nii te war a doxale nii te loolu itam du yoon parce que euh, promoteur bi nawleem la dafa am lu mu seq ak moom waxante ko moom ba ñuy waxante dafa neex ba mu ko joxee avance dafa neex lépp dafa neex kon lu mu mën a doon rek ak lu mën a nekk ak lu mën a xew dañ ko def ci sutura nañ toog waxtaan ko mais waxante bu ñaaw bi waxante leen defarul day yàq nañu defar te yàgg-yàgg dañu trouver solution kon boo ci waxee lu ñaaw yaa koy mujj dese kon waxal lu rafet lu rafet daa jar ñaan waaw. am na solo message bi am na solo mu mel ni kon euh, fi fi may mujj ak yow rek mooy ku ne xam ne ne liiru Diane moom ku ne xam na ak moom ne day fête anniversaire am la 14 ah defe naa sa digganteeg Lirou tey ba mu ko doon tënkal ci lu gàtt euh, lan la sa digganteeg Lirou Diane. non sama digganteeg Lirou mënu ma ko tënk ci lu gàtt dafa gudd parce que bu ma lay wax rek tey ci suba ñoo ndékkandoo waaw ndax ñoo bokk fu ñuy liggéey ma ak moom. fu muy liggéey ci yow. ñoo bokk fu ñuy liggéey maa ngi moom ñoo bokk fu ñuy liggéey ñoo ndékkandoo ñoo ndékkandoo tey ñoo tàqale ko léegi nii ma am fu may dem moom itam mu am lu muy def pour am fu muy dem kon sama digganteeg liiru dafa yàgg nag du du làmb nii liiru dafa ma yàgg bëgg ma yàgg ko bëgg mu yàgg ma teral yàgg jël xaalis def ko ci man di ma may ay bon fañ doon daje ah mu koy jaral mu naan kii saa yu ñëwee maa ko paye maa ko payé nañ ko dagg sama salaire muy liiru muy alam daan seen salaire dagg nañ ci xaalis bu bari pour man ba tàyyi fa ma leen daan fekk ñu dema defal lu ne ñu bokk day bokk bàyyi la preuve gi nga liiru doomam bu mujj rek man la ko tuddee ku ma xam-xam liiru liiru sama nit la kon buy feete anniversaire am bu feete ko man maa koy feete. yaay feete anniversaire. maay si moo liiru maak ngi moom benn lañu. lépp lu mu war a def man maa koy def. parce que noonu naa ko nag yow xewi jàmbur rek ngay dem bu Balla Gaye di safar nga ne ca kanam bu bu anniversaire nga ne ca kanam bu jëy di ngénte noonu bu jarbaatu jëy di ngénte noonu waaye yow doo organiser xew mukk. ah kay organiser na xew parce que barki démb rek yaakaar naa ngénte bi mu ngénte géejewaay fii ke ah ko mën de bariwul ndam li mu am géejewaay fii kenn am ko parce que mooy moom mooy monument géejewaay moo toll noonu. boo demee nag ba yàlla jox la yenn cër yi boo wootee àdduna bi daje ñëpp daje da ngay moytu bu bari waaw da koy mootu parce que say yi ànd ak yow di jëf ci yow te son ci yow am situation yi ñuy dund moo tax nga war a doxal yenn yi te liiru nit ku baax la liiru nit ku am xel mu rafet la liiru nit ku bëggal nit dafa mën nitam moo ko Abdou Lahat Njaay ñoo yem foofu maa ngi koy nuyu de passage dañoo mën seen nit gëm seen nit gëm seen bopp nag bëgg seen bopp lool kenn du dem seen kër yi ba fekk seen njaboot na ñam wala leen li ñuy wax wax ci nit wala ñuy def leen li kon nit bu mel noonu dafa jar a àndal nit bu mel noonu dafa jar a àndal maa ngi koy souhaité bon anniversaire moom liiru di ko wax ne nag la 14 du yomb ah. waaw évité nañ Sénégalais est ce que Macky du ñëw sax. président ah waaw. ci anniversaire liiroo xew la fu Balla Gaye di ñëw. Ah, Alioune Sall di ñëw. Dieye di ñëw. keneen ak keneen di ñëw ñu évité ñëpp Aziz Ndiaye di ñëw ñeneen ñëw mais pourquoi pas. murit yeeg te yaan yeeg xaar yeeg laayen yeeg catholique yeeg ñëppay ñëw est ce que duñ ko defee arène nationale sax. laa daw. ah bi la ñuy bañ. lool ah non garaawul dinañ ko seere waaw. Dieye <laughs> looy looy looy tàggatoo looy waxaat euh, àddina bi looy waxaat Sénégal bi looy waxat monde de la lutte. waaw li may wax monde de euh, yomb na d'abord maa ngi leen di seete gis naa ay combat yu ngeen taxawal waa yéen. waaw Vox Arena yéen maa ngi leen ci ñaanal ndam euh, leen wax ne tool bi yaatu na ku nekk mën ngaa béy sa te gopp yi du ñu fengaloo su ma bayee sama waar su ma la jëkkee eggal naa ñëw jàppale sa waar soo bayee sa waar soo ma jëkkee eggal ñëwal jàppale sa waar ak xol bu leer parce que dañ ne waaw góor boo rombee nit ca tool ya buy bay billaay bëgg naa dégg waaw góor kon tool bi yaatu na bay leen mbër yi bari nañu làmb ji journée yaa ngi fi lépp a ngi fi tëgg leen na neex te ngeen xam li ngeen di def xam fi ngeen di jaar yéen ñi nga xam ne waa ji xaw ma ban côté la jaar. Alioune Badara Diouf Alioune Badara Diouf parce que la dëkk. waaw xëy na santam rek moo baaxut. santam moo baaxut jiital leen seen bopp yéen te ngeen bàyyi Diouf ji. parce que Diouf moom ah mënu ma cee sori nag. ma jiitu xanaa wala ma jiital. sama sama maam Diouf la sant mais en tout cas góorgóorlu leen bu baax combat yu neex ngeen taxawal man daal dama leen ñaanal réussite parce que làmb ku ci ñëw rek bu la gars yi saxitoo nañ la jàppale nga am ndax bu déwee ne man ak yéen man yéen ñu mën a xëccoo yeneen combat lamb ji gën a dox parce que ñun luy développé lamb la ñuy wër kon bu ñu gisee nit ku ñëw ku bëgg a liggéey ci làmb vraiment ak yéen ni ngeen taxawee ci lamb am seen sit indi yeneen façon ci làmb ñu ngi leen di xaar ngeen indi def fi loo xam ne nii gay yi gëj nañ ko gis ci lamb wala ñu ko doon xaar ci làmb nekk leen ci dina dina baax incha allah. yow tamit dañ cay soxla sa expérience ndax ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay wax fi ngay toogee ak yeneen promoteur yi ne bool bi nga xam ne ci la ñu war a lekk te defe naa ku la fa jiitu war na la wax fi ngay toogee non ñun moom amuñu benn problème ci côté boobu woo nañu jox nañ ko suñu kàddu ñu ngi koy conseillé nañ ko moo tax war na sax ma dugal ci lu mel nii pare nañ daal pour accompagner leen ba seen làmb yi ngeen xam ne moom taxawal ngeen gis ci seen bopp sénégalais yëpp gis seen bopp mbër yi ngeen tëgg itam gis seen bopp combat yu neex ngeen tëgg nit nag boo ñëwee ci ci def li nga war a def kon xaar yàlla rek a des kon nañ leen dem xaar yàlla xaar fa yàlla loolu la maa ngi nuyu waa Sénégal gépp nag wax ji bu amee lu ñaaw wala lu gën a rafet na ko sénégalais yi comprendre maa ngi jégalu ñëpp di bal ñëpp ak di balu ñëpp ak leen wax ne nag vraiment nañu nangu dogalu yàlla fii li nga dégg président jël ko keneen jël ko lépp ngir defar réew ngeen jox a fii gars yi nit li nga bëgg yaa koy may sa bopp nañu dem liggéeyi liggéey bi bari na ci àdduna bi dégg nga mënoo ñëw di yeewu midi tëdd euh, six heures du matin yeewu deux heures yeewu trois heures bëgg dara nekk sa poos mënul nekk man mii damay tëdd trois heures du matin quatre heures du matin sept ma yeewu ku bëgg dara da ngay dem defi dara gars yi nañu bàyyi seen caaxaan te dem liggéeyi loolu daal la fonk te ñu doy loo la ñu am def loo mën wax loo mën nelaw ba yàgg jërëjëf am na solo kon xulle del def loo man del wax loo man ngir boo tëddee man a nelaw loolu la jéey wax te defe naa loolu dafa valable pour ñëpp ñëpp ñëpp yaa ngi dégg lu ma la wax di ñaan Sénégal jàmm di wax ne message bi am na solo macha allah li mu fi wax yëpp defe naa ne ku ci ne war nga ci mën a tirer ay leçons yoo xam ne di nga ko yóbbaale ndax nag loo ci mën a dégg moom moom comme ni ñu koy waxee rek mën naa moom wax ci moom parce que li tax mooy dama koo xamoon ca garage su pompier centre course mu nekkoon fa comme tôlier yàlla dogal mu dugg ci commerce dugg ci commerce ba defe naa tey ah laf rek lañ koy wax macha allah mu ngi yor ay employé di fay weer wu dee te defe naa loolu koy maye xaar lu yàgg. garage pompier. lu bëri xamuñu ne nag def nga mais def nga toléré. lu lu lu doy maa ngi nuyu benn maire de passage maire Mariama maa ngi fàttaliku keroog rek dañoo dem Cissesse jam ay bagages yu ñu jënd foofu ay sanitaire sama xel dem ci maire Mariama ma jooy jooy yu metti ndax dama doon fàttaliku bu heure euh, ndekki jotee bu gaa yi yor yor duñu yor luñu njëkkee. waaw waaw du yor lu. yor luñu njëkkee bu gaa yi ñiy jënd laax. jënd fonde ñi jënd caakri bu ñu lekkee ba pare loolu lañu maire bi daan beral dajeelal ñu ko moom lañ daa lekk ci lañ daa bu añ jotee yi sëfër yi doon desal ama meer bi loolu lay dajale boole ko xooñ yi moom lañ daa jox ñun ñu di ko lekk bu ñuy ñibbi ñu defal ci mbuus moom la ñuy reere ñun yooyu lañ doon dundee boobu temps nekk ci loo xam ne mais gëm sa bopp rek a wóor loolu ñu doon dundee mais lu ñu wàññi ah boobu bëgg nga lekk te doo sàcc doo def ci yoon gi te amaloo lekk nooy def maire bi noonu la doon def muy man muy yow muy Moussa waaw muy muy muy Pape muy keneen yooyu lañ doon dundee ah desit yooyu ñu xam ne gars yi moom la ñu daan jën moom la ñu maire bi doon dajaleel du ñu xamee benn kii ak taalibe yi du ñu ko séddale ñu di ko lekk nañ sant yàlla bu baax jërëjëf waaw message ba am na solo kon gars yi foofu lañu ko yemale nañ ci tiire rek. liñ ciy jëlee jariñoo ko muñ moom defe naa ni fu mu jiitu ci doomu aadama loole mën na la fa fekk kon xulle na nga muñ hélas na muñ soxna si nanga muñ muñ am na solo trop muñ nag te yàlla tax la ñu wax